sëriñ naar jenn hmm. ci ki ci njëkk la hmm. gannaaw sama sëriñ hmm. sëriñ Cheikh Bombali mii sama sëriñ ak sëñ Alaaji Baara ci ku ñu dooleeloon lañ la parce que du ko fàtte mënoo fàtte sëñ Alaaji Baara ku ko fàtte tam man mënu ma ko fàtte ak sëriñ ma Matilay mi nga xam ne dem na ba wóolu ma ba may ma ba may ma doomam kon waaw waaw kon nag maa ngi koy sant baax di ko ah, gërëm ko waaw koo xam ne di ko ñaanal ndax tamit bu dul woon moom it du ma àgg fi ma jëm kon maa di ñaan yàlla taas leen ci barke ñoom ñépp mm-hmm. waaye nag di sant bu baax tamit yéen ñi nga xam ne mm-hmm. yéen a ngi def lii café du soir mm-hmm. ngir ngir gën a sensibiliser population bi c'est très important tey ngeen koy def ci yeneen débat yeneen débat yeneen débat lu xew ngeen fexe ba nit ñi xam seen warugar daal c'est très important euh, Modou xam naa laaju euh, tooñ rek ngir jeexal jotaay bi euh, ana sa carte ngir ci ñiy aar yaa ngeen moom waaw mi ngi nii ak man. waaw mi ngi nii ak man. jërëjëf waaw ma ma woon la ko. kon leer woon woon ma ko ma xool. waaw ma woon la <laughs> ci exclusivité. waaw ah, mi ngi nii de bu la ne moom fi la lépp xewee. waaw yi gisee lépp c'est très important parce que boo gisee lu tax ko am na ay yu bëri yoo xam ne mënoon nañ ko laal mënoon nañ ko waxtaanee mais am na lu tax xëy na mënuñu cee sori bu baax a baax Euh, looloo tax bu ñëwee ci jotaay rek ñu ngi te ñu bëri soxla woon ko. sama carte euh, waaw bii de bii de yor naa ko yor naa yor naa yeneen it mën naa génne yépp waaw